Cheikh Arouna Diallo, président de la cellule de veille communautaire de la région de Thiès sur la protection sociale. C'est-à-dire euh, ñun euh, la cellule de veille communautaire de Thiès ba ñu installé dañu dénkoon ab liggéey boo xamante ni ñun dañ ci waroon wàcc su terrain bi def ci liggéey bañ ci liggéey nag def ci liggéey bi am solo def ci ay émission rajo ba ñu paree ci émission rajo def nañu émission télé ba ñu jógee ci émission télé bi def nañu collecte de données def ay enquêtes pour ay enquêteurs. Euh, jabal leen ci askan bi ñu defal ñu ay enquête lu jëm ci zéro cinq ans lu jëm ci plan Sésame lu jëm ci dialyse lu jëm ci bourse de sécurité familiale lu jëm ci carte d'égalité de chance ak lu jëm n'est-ce pas ci lu ñuy woowee euh, les hémodialyses donc bañ defee enquête yooyu ba pare gis nañu kat population bi euh, yenn file sociaux yi xam nañ ko mais am na yoo xamante ni tey dañ ko réere mbir ba tey te enquête lu muy wane mooy tey lépp loo xam ne dafa jëm ci protection sociale te mu amal njëriñ bi askan bi njëriñ population bi gis nañu kat am na ay manquement am na lu ci des lu ci des mooy ñoom gisoon nañu ni 0,5 euh, ans yi bu demoon ci poste santé yi dañ leen doon jox garab IB n'est-ce pas à hauteur de 1400 te gis nañu loolu loolu amatul léegi ci poste santé yi buur bourse sécurité familiale yi ñoom gisoon nañu seen xaalis doon nañ ko fay à temps mais gis nañ léegi day am ay retard de paiement am ñoo xamante ni pour ñu jot seen xaalis sax si ay jafe-jafe la donc yooyu lu mel ni plan Sésame bi tamit nga xam ne ñun région la cellule de veille citoyenne de Thiès xamante ni moo nekkoon suñu thème de bu ñu waroon liggéey gis nañu le plan Sésame enquête yu ñu def si monde rural bi kat gis nañu plan Sésame euh, nit ñi xamuñu ko am na njëriñ mais mag ñi xamuñu plan Sésame wala xamuñu fan la ñuy jaar ba bénéficier wu plan Sésame programme bu baax la mais war nañ ko gën a euh, euh, wax nit ñi ñu xam lan mooy plan ak fan la ñuy jaar ba xam ba ba bénéficier wu plan am parce que mag ñi n'est-ce pas plan SEDAM leen soxal te wàllu faj dafa nekk jafe-jafe jafe-jafe Sénégal wàllu mutuelle santé yi ñun tamit gis nañu mutuelle santé lu am solo la mais mutuel tamit gis nañu ni dafa bëri sooxe sooxe mutuelle dafay bëri n'est-ce pas jékki-jékki day dem ba si kanam di am ay arrêt de prestation te lu ko waral arrêt de prestation yi mutuelle dañuy yoral bor yu bëri Euh, structure sanitaire lu mel ni poste santé centre de santé ak hôpital loolu nag mooy indi n'est-ce pas bu ñu demee ba ci biir euh, mutuelle bi ñu ne arrêté na fii wala arrêté na fële te du arranger population bi te wàllu wér-gu-yaram n'est-ce pas mutuelle daf ci am daf ci am njëriñ parce que mooy permettre vraiment euh, les mutuel de santé n'est-ce pas ñi ñi ñi ñi bokk ci mutuelle santé ñu mën a faju te du ñu dépenser xaalis su cotisation yi parce que lu ñuy wax mutuelle de santé état dafa war a am lu ñuy wax euh, subvention yu mu war a verser ci mutuelle santé subvention yi nag bu amee retard rek tuuti rek day impacter ci ci mutuelle santé bi parce que cotisation yi moom la ñuy fajee paquet de base bi subvention bu état bi joxe moom la ñuy fajee paquet complémentaire bi bu yéexee ñëw rek loolu day impacter ci ci wàllu euh, faj bi surtout su côté faj bu diis bi du jëm côté hôpital. mooy liggéey bu ñu doon def nii la cellule de veille citoyenne ñun cellule de veille def nañ ci liggéey bu am solo. ba ñu defee jàngat bi def diagnostic bi su terrain bi léegi def nañu ay recommandation recommandation yu ñu def mooy yoo xamante moom lañuy jébbal kilifa yi mooy fexe ba tey 0,5 ans boo xamante ni euh, askan bi boo demoon si poste santé euh, dañ la doon jox garab yi bay si santé bi di gis nañu amatuñu fexe loolu mu ñëwaat. si poste santé yi jëm si plan Sésame ñu fexe information bi dem si monde rural bi ba suñu mbokk béykat yi suñu mbokk nappkat yi ñu mën a bénéficier wu si plan Sésame bi yombal procédure yi yombal n'est-ce pas lenteur yi ba ko xamante ni am nga juróom-benn fukki at plus de 60 ans nga mën a bénéficier wu si bourse si euh, plan Sésame ñiy yor BSF yi ak carte d'égalité chance yi tamit ñu fexe ba carte d'égalité chance bi amal njëriñ ñu ko yor ñu mun see faju te jarul ñuy dugg si mutuel carte bi bu ñu ko présenté rek poste santé bu mu mënta doon wala hôpital bu ñu ko bu mën a doon bu ñu présenté seen carte d'égalité chance rek ñu mën see faju te yokk tamit production carte bi parce que production carte bi dafa doyul lu ñu am si personne vivant avec un handicap ak lu ñu produit si carte doyul donc lu ñuy ñaan mooy nit ñi fexe carte yi ñu yokk loolu boo leen si recommandation yi yeneen recommandation si mooy lu jëm si si euh, hémodialyse bi état mu ngi siy def effort yi am solo mais lu ñuy yokk rek mu gën yokk centre parce que ñiy toog di xaar pour ñu defal leen dialyse wala ñiy toog di xaar euh, nit génn nga dugg dafa bëri te loolu nag bu centre doyul si Sénégal nest pas mooy indi jafe-jafe yokk nit ñi vraiment seen jafe donc loolu li ñuy ñaan euh, l'état du Sénégal mooy ñun suñu liggéey bu ñu def war ko jébbal kilifa yi n'est-ce pas recommandation yooyu lañ ci def n'est-ce pas fas yéene ko yóbbu jox ko kilifa yi n'est-ce pas ñu apporter ci ay collectif Gueye ay Thioune je suis membre du Conseil national des aînés je suis actrice et bénéficiaire mais également je suis la coordonnatrice de de la plateforme de veille de la cellule de veille communautaire. jafe yi moom la ñu loolu la ñu gëstu woon ci enquêteurs yi parce que avait pris des enquêteurs donc plus ah, jël nañu ay enquêteurs yoo xam ne lu mat juróom la ñu file bu ci nekk ñu dem di ci def enquête bi ñu enquêté itam ci césarienne bi gis nañu jafe-jafe yooyu moom la ñu souligné léegi mooy tey ku indi sa malade mbaa indi sa soxna ñu ne la doo fay césarienne bi waaye garab bi dañ lay def euh, benn liste kilométrique boo xam ne parfois. nit ki sax du ko mën a supporter dafay mujj génnaat dem di wuti ndimbal pour ñu mën ko supporter kooku tam war nañ ci xalaat pour xool ba xam naka la hôpitaux yi mën a jëlee en charge quand quelque euh, quelques frais médicaux yoo xam ne dina mën a accompagner femme bi pour ñu mën ko jël correctement en charge. et ah kay nit ñaa ngi fay dem mais communication bi dafa des parce que le médecin chef est très dynamique parce que dafay bu centre gériatrique bi. Il travaille en étroite collaboration avec l'action sociale, qui gère un peu groupe groupes vulnérables. Euh, waaw <laughs> mi ngi liggéey ak action sociale mi nga xam ne mooy gérer groupe vulnérable yi mi ngi liggéey ak euh, yeneen structures yi les postes de santé la région médicale yooyu yëpp ñi ngi liggéey ak ñoom pour xool ñun itam loolu moo doon suñu liggéey Oscar bi mu ñu jëlee ñun ñu nekk CVC euh, ñun itam ñu waroon a ñooy tas xibaar bi auprès des populations looloo tax ñu organiser cinq émissions rajo yoo xam ni dañ ci waxtaan uniquement pour centre gériatrique bi léegi itam def nañu une émission de télé à Dakar pour waxtaan ci si file yooyu yëpp waxtaan nañ ci pour xool naka la ñuy yombale doomu aadama yi ndax euh, jafe-jafe yi dafa bari tey Sénégal ku amul xaalis bu bari doo mën a faju ñu gën ko xam ñu gën ko xam yéen en tant que la presse les médias war ngeen ci wax wax ni am na centre gériatrique boo xam ne existe na à Thiès te mag ñi lay jël te dans un premier temps jafe-jafe yi génnagul torop parce que boo ñëwee itam li ngay fay du bari mais dinañ la buñ la mënul jël completement y a des radios et tout yu fa yoo xam ne installé nañ ko fa te c'est bien équipé wax dëgg yàlla c'est très bien équipé bu ngeen demee dañ dañ lay mettre à l'aise y a des travailleurs sociaux ak yëpp de telle sorte que vraiment mën nañ ci am accès bu baax a baax a baax a baax. Thank you.